Jàmm rek jàmm rek

léppay baax mais kontaan nañ ci léppay baax D'accord On est derrière vous. yaa ngi jàmm na ngay tëye na nga suba bi ça marche Oui, oui, ça va, non, non, non, non, non, non,